El Hadj Falilou Ndiaye di adjoint maire euh, représenté woon maire ci réunion bi nga xam ne moom lañ amaloon fii tey ginnaaw bi ñu nuyoo population bépp nuyu jullit yëpp euh, réunion tey bi am na solo trop ndax journée tey bi moo am solo muy journée rein nga xam ne ñi nga xam ne yàlla dafa def ñuy def jëlis euh, ceeñ bëri lool ci dëkk bi mu am journée boo xam ne dañ leen dañ leen ko jagleeloon tey ci wàllu nan mooy joxe rein ak tax rein am solo maanaam jëlis am solo ak nit ñi koy def métti ñu woowoon ñu ci réunion tey dajale woon directeur hôpitaux yi yëpp ak service bi nday màggat jiite woon ko ñu àndul ñëw fii euh, biir waxtaan wi dégg nañ ci ne am na kàddu yu firot yu am solo yoo xam ne li ci solo mooy interpellé nañ ci mairie bi wane ne taxawaayu mairie bi ci wàllu santé des na dëgg loolu itam nangu nañ ko da ci am loo xam ne dëgg la ndax euh, alxaq saa bi dëgg mooy sax nit moom soo déggee dëgg nañ koy nangu taxawaayu mairie bi ci wàllu santé des na. ñàkk xam la wala ñoom ñoo ñëwul si yéen. da ci am loo xam ne ñàkk xam la woon ak itam mbir mu ne rek euh, na ko yàlla tuddee ndaay bi nga xamee ne dem nañ ba xam ne am na ci loo xam ne nii mairie bi war na ko mën a jël engagement ci wàllu santé incha allah loolu danañ ci taxaw. ñàkk xam gi am na ci loo xam ne jàppoon nañ ni mairie bi waru ko mën a def ci wàllu santé waaye dem nañ ba xam ne mairie bi war na ko mën a def incha allah loolu itam jël nañ ci euh, compte ba nga xam ne fexe na incha allah. mairie bi taxawaay bi nga xam ne war na ko taxaw ci sant surtout ci dëkk bi surtout na ci maladie bi dana ko def muy si nit ñi jàppale itam fexe ba renforcer waat ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir centre de dialyse yi nga xam ne amal nañ ko taxawal ko fii muy mel ne Fawzeyni ak Ndamatu ñu mën a fexe ba mairie bi jàppale leen parce que li docteur yi wax ci biir réunion bi wane ne li nga xam ne mënu manqué woon muy euh, euh, euh, machines yi léegi machine yi doy na waaye personnel bu yor machines yi moo des kon loolu mairie bi na ci mën a taxaw ci incha allah Euh, ak kii équipe bu bees bi nga xam ne dina ñëw bu ñu taxawalee wax na ko ci réunion bi danañ fexe ba mairie bi jël loo xam ni dana mën a taxaw ba nga xam ne machines yooyu ñu am nañ fi ci liste d'attente bi bëri torop ci ay mis ay ay machine nekk fi yoo xam ne utiliser wuñ leen ngir ñàkk personnel personnel boobu mairie bi dana ci taxaw incha allah fexe ba machine yëpp fonctionner. muy journée mondiale du rein ñu doon defaale benn atelier boo xam ne dañ ko doon ànd ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy way docteur yi euh, ngir xool nan la ñuy def ba seenum paj gën a am dayo dëgg la nag ñoom ñi ngi koy sonn càmbaar lañ waaye day tawat yoo xam ne su ci nit ki xësee ba dugg metti na metti goo xam ne ku ku ku taayal du leen mën a gunge ndax day loo xam ni fa mu jëm dafa sori moo tax ñi ngi leen di nemmeeku ñi ngi xam ci ñoom dara ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo leen di faj di sant kilifa yi nga xam ne ñu ngi leen di encadré waaye ñuy soññi seeni i mbokk ci ñu di leen bàyyi xel di leen jàppale aussi ci seen garab yi ak seen déplacement yi ndax seen déplacement yi day bëri ndax dinañ dem trois fois ci semaine bi hôpital te day ànd ak ay garab ànd ak ay piqûre buñ leen ko bàyyee rek mën naa diis. waaw tey dañoo am mbégte daje fii tey ci biir centre de santé bu jéemul. muy hôpital Matlaboul Fawzeyni ak euh, hôpital Ndamatook euh, euh, district sanitaire Touba ngir jëmmal li ñuy wax bokk ci ndaje mi ñuy wax semaine nationale du rein dafa am benn ay bés boo xam ne bi dañ ko jagleel jàngoro yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu roño te ñu xam ni fii ci Touba doon na jàngoro joo xam bi am na fi solo trop te ñu ñun hôpital Matlaboul Fawzeyni bi nga xam ne fa la ñu féetee malade yi ñuy gis ñuy war a am jafe-jafe yu mel noonu wala di soxla ñu leen defal ay jalis yegg na dayo boo xam ne bii euh, laaj na suy mel ni amee ñu ñëw def taxaw seetlu mun cee profité pour wax askan wi ñu mën a gën a mën a fagaru ndaxte boo xaaree ba jàngoro ji dal la xëy na li muy laaj ci wàllu xaalis ak ci wàllu alal dafay dem ba yegg dayo yoo xam ne léeg-léeg maanaam ñi nga xam ne ñoo feebar duñ ko am kon nag euh, fexe ba mu bañ a law ci askan wi doon loo xam bi kenn ku nekk war na cee xar tànk tuweem waaw euh, municipalité bu Touba am na commission boobu bi nga mooy commission bànqaas boo xam ne day yëngu ci wàllu wér-gu-yaram donc mooy toppatoo poste de santé yi ak centre de santé yi ak même hôpitaux yi ndaxte xañ na hôpitaux yi ñoom ci conseil départemental la ñu war a aju waaye ginnaaw hôpitaux yi ci biir Touba lañ nekk maire bi xam na ni ñi ngi ci biir Touba te xam na tam li ko ci war ba tax na suñu gën a yokk waxtaan yi xëy na dañu gën a mën a am ay maanaam jàppandal ci li nga xam ne moom la mairie war a mën a jàppale euh, formation sanitaire yooyu pour liggéey bi gën a mën a jëm ci kanam. docteur Makhtar Lo directeur hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba. maa ngi tudd docteur Ndeye Maguette médecin chef district sanitaire de Touba ànd ak samay naataango lu mel ni dépistage mooy nit ñi ñu ñëw ñu xoolal leen seen deret xoolal leen seen suukar seen tension ak seen. Euh, feebar yi nga xam ne mooy indi feebaru roño boobu ñuy wax def nañ ci tamit eh, ay waxtaan def ci ay formation waaye surtout dajaloo ci dajaloo bi nag dajale mm, sous-préfet dajale maire dajale hôpitaux yi directeurs yi dajale it waa district bi ak association bi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu ak docteur yi nga xam ne ñooy faj ci wàllu roño ñu war a waxtaan ñëw ku ci nekk wax say jafe-jafe sàkku ci hôpitaux yi ñu lu ñu def benn wala ñaar ñu gën a dolli euh, sàkku ci district bi ci wàllu euh, fagoro bi fegu bi ñu gën ci taxaw te ci poste yi ak centre yi tamit bu ñu gisee malaat mu am ay jafe-jafe ñu teel ko euh, orienté ci hôpital bi waaye it ñun ñëpp nag ñu ànd wax suñuy mbabat maire pour mu defal ñu plaidoyer ci autorité yi ca kaw waaye it ñoom it ñu jàppale district bi jàppale hôpitaux yi ba sa centre yi gën a mën a yokk ni ñuy liggéeyee ba nga xam ne liste d'attente ñi nga xam ne dañoo soxla dialyse gën a wàññeeku bu baax a baax ndax lu metti la appareil yi am fi waaye nit yi na mu war a tey bu ko tayul li ñu war a liggéey duñ ko liggéey tey jii nit di xaar jalis ba suñu borom dogal eh, ci moom ay dogalam lu metti la alors que bu ñu xàccee xàcceendoo dóorandoo ñëpp àndandoo eh, collectivité locale yi muy mairie bi gën ci jàpp tamit recruter ay ressources humaines ay nit di leen fay dina tax dëgg yàlla problème boobu mën duñ ne dina jeex ci Touba waaye dana wàññeeku bu baax a baax te eh, district bi tamit mu ngi engagé wu ci gëna yokk ñaax askan bi ci ñuy def li nga xam ne moo leen di musal mooy maytu yenn ñam yi maytu yenn lekk yi waytu yenn xeetu ndox yi maytu tamit yenn garab yu ñu xamul fu ñu ko defee yuy jël ak euh, muy ci garabu tubaab comme ci garab olof di yëngal seen yaram mooy li ñuy wax euh, sport nu mu mën a nekk dox bi dara gënu ko ci waaye it euh, di fexe ba di lekk-lekk yu sell di naan naan bu sell te bu ñu yëgee dara seen yaram ñu dem teel ko saytu ba ñu xam lan lañu ñu teel leen faj balaa ñuy yegg foo xam ne daanaka euh, mënatuñ si dara donc daal euh, ci tënk loolu la woon.